nga xam ne yàlla dogal na it mu nekk fi sama seetlu la da nga ci dem dem mboolem ñi nga xam ne yàlla dogal na daal keroog ba nga ñëw fii ba ma ne leen kii ñëw na fii kenn ku ci ne dajane lam am def lam mën amoon nag koo xam ne bi ndey looy la sama set la yàlla dogal na maa ko woo ne ko dama dégg ñu ne gouvernement dafa ñëw tey te monsieur Adji lañ ko dégg nga borom këram ne ko ah dugal moom sëñ bi woote na foofu nga dem dégg nga suma grand euh, président ñoo xam ne ànd ak ñi nga xam ne moom la ak suñu jërbaat euh, Samba Samba Samba Faye euh, ñoo koy jiite délégué de quartier chef de village fii ci tookasoon dee fan moom it suñu ñi dafa nekk Dakar waaye jokkoon ak man bi mais bu fekkoon ne maa ngi woon foofu maa fi jiitu ak yeneen i délégué chef de village yoo xam ne ñu ngi fi te waxuñu yàlla dogal bu fekkoon ne bëggoon mi gën a yaatu parce que yow ba nga ma wooyee barki dem del ma ne daal dama bëggoon euh, président euh, daal moo waree ñëw def pour dem ñu ngi ànd ak moom ma ne ko yàlla dogal nga ko waat ma bii ne daal ah de mu may woo léegi dina fàttali mbaa bi ñu ne lu ñu xaw a def ñu def ñu ne ko waaw ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko mu yëg ñu yëg ko dégg nga mu jëm te ñu xam ne dafa bokk mu am ñu ko fa teeru su amoon espace tuuti bu ñëwee fii du am otom fu mu gaare dégg dëkk bi euh, gis nañ taxawaay bi ci dëkk bi ndax yàgg na fi yàgg na fi ki nga xam ne moom la ne comme ñoom ñu bokk nekk asse gouverneur kenn ku ne am na mu saytu te kenn du jàqu fi kër gi kër seen kër la bu ñu jógee si kër ku ne ci leneen ba yàlla dogal ñu jëwaat ñëw mu mu nekk ak préfet département yàlla dogal ñi nga xam ne moom la ñu nekkaloon bi moom it ñëwaat ci moom yàlla dogal mu jógee ci nag gouvernement benn kon mbaax boobu nekk ci yéen ak xol yu rafet bi ak defar defar bi loolu yàlla bu ñu jël kon fu ngeen jëm ngeen doon kooku gouverneur de la ñi nga xam ne mu ngi ko yor te kenn ku ne ci yéen li mu yor yokkute la waaye ñu ngi leen di ñaanal yokkute boo xam ne gën na koo kawe te gën koo naat gën ko barkeel moom ak ñu ko mais actuellement jusqu'à présent euh, les gens viennent récupérer ça Parce que ça, le semestre depuis le, le 25 janvier. mais nag ni ngeen defee papaay tamit da ngeen koy def garabu kër gi est-ce que. non c'est que par ah, on a un problème de clôture. ça se fait cette année. ah mais nekk le long du du kii. waaw le ah, mu nekk genre évi. waaw waaw waaw loolu on verra parce que am na luy bon bon chantier moom donc a déclarer les ouvriers qui sont là nga déclarer ko ñu xam nan parce que jafe-jafe aussi autorités yi ñoo koy gérer intérêt mais suñu yëgul ça pose problème mais loolu xam naa ne comme que dañoo nekk si tour nañ ñëw xool li des nag après les gens vont vont apprécier Et arrivé à Tchobé, on aura une autre piste qui quitte pour aller à Tchobé. Voilà, c'est ça. Donc, ça pourrait se faire de Sambé, Tchobé, Tokyo. am na benn nekk village n'est-ce pas le forage am na capacité pour seen mu ñëwee dafa dugal. taw yi taw yi dafa extension léegi dem joxoon nañu quelque chose boobu tam la dugg ci jàppoon na monsieur le maire kilifa yi koy daataan ca kaw mënu ma wax ne kat dinañ ko def wala nañ ko def si diir bii waaye mën nañ jël engagement ni kat dinañ def tout pour ñu yëg ko ñu xam ne lii mooy soxla askanu commune Patar lool moom mën nañ ko def topp ci su antoon nag ñu jàpp ne mbir borom bi mais lépp luy Pastef nañ ko ci def pour que lool mën a mën a saafaru kon jàpp leen ne programme de rectification rurale boobu commune Patar dina ci am wàllam te am nañ yaakaar la dina bokk ci village yi nga xam moom lañ na yaakaar aussi gën a dooleeku ndaxte fukk at yi gis nañ ne du yàgg ñu commencé exploiter le pétrole et le gaz au Sénégal te ñaar yooyu mooy pratiquement source d'énergie te gëm naa ne balaa ñu koy yóbbu feneen tamit la ci ëpp njëriñ dina des réew mi muy fexe ba énergie bi jàppandi ci yenn gox goxaan yu bari kon yaakaar boobu fanaa en début d'année 2024 mën naa am ñu commencé l'exploitation kon loolu nañ jàpp ne euh, programme électrification boobu on dina gën a law kii diwaan yëpp mais n'empêche jël nañu engagement ne aussi nañ ko yeggali kilifa yi la ca des rek muy wàllu ralentisseur dëgg la yàgg nañ di jot demande yi surtout fekkee nañ ay accidents yi fi am en tant que préfet département de Diourbel mais ba ñuy ñëwit ñi ngi ànd ak service régional des routes mais AGEROUTE bi nga xam ne aussi moo yore l'entretien des voies dañ ko yeggee waaye lu jàpp tamit nag pour national moom mënoo def fëpp tamit ay doo daan wala heureusement vous l'avez compris parce que am na si ñoo xam ne dañuy defal seen bopp doo daan alors que doo daan yooyu sax mu naam mooy gën a jur ay accident ndax du méngoog nañ ko war a defee mais naam yéen ah fekku leen ci loolu ndax loolu soo ko defee aussi dëppawut ak yoon kon dañuy rafetlu baax aussi taxawaay bu malgré que soxla bi yàgg na mais gisaguñu quand ay doo daan yoo xam ne askan ñooy jóg di ko def continuer leen ci loolu te xam leen ne yëg nañ ko incha allah niñ ci góorgóor bu ñuy bëgg neew ma nag dinañ def foofu ay doodaan waaye techniciens yi nañ ko yëg fañ ko war a def it ñu def ko fa pour mu gën a protéger aussi askan bi mais na route nationale moom mënoo jël 100 mètres yu ne nga def doodaan su yàggee tamit day indi ay jafe-jafe ci ci tali bi euh, leneen rek muy si wàllu njàngale muy wàllu lycée foo naa addi woon nañ ko fële si kër sëñ Bara Diouf ñu koy fedd di ko néew di ko ziar actuellement tey jii inspecteur d'académie mi ngay def ndaje ci gouvernance pour xool fan lañ toll ci njàngale mi ci biir région de Diourbel muy ce qu'on appelle la revue annuelle dans le secteur de l'éducation ñu ngi def moo tax tey jii ne àndut ak ñun sama adjoint moo koy jiite lenn li mooy xool jéego yi nga xam ne def nañ ko ci éducation mais également projection yàlla la ñu war a def ci at yi en terme d'ouverture de lycée ak de collège yaakaar naa ne da ca techniciens yi ko yore dinañ ko jàngat pour xool également dans la commune de Patar rawatina à Sambé si les conditions sont réunies pour ñu mën faa lycée gisuñu benn jafe-jafe également pour ñu mën ko def te yéene bi mooy fexe ba lycée collège yi gën a jege askan wi foog naa ne ñu ngi si def ay jéego ndax bi nekkee ci bopp département de Diourbel li fi nekkoon ci lycée ak léegi daa mel ni lim gi yokk na te incha allah rabi gëm nañu kanam la jëm pour gën a jàppandi njàng mi ci kanamu askan yëpp lenn rek ndax ñàkkul am na ci ay mëbët yoo xam ne àdduma ci mais comme lu ma leen wax rek suñu eggee incha yi rabbi dinañ ko gën a xoolaat lépp loo xam ne taxawaay la ci biir région de Diourbel bi def ko lépp loo xam ne war na jëm ca kawit nañ ko jéem di remercier encore une fois monsieur le maire ci organisation bi nga xam ne moom nga def ak dalal bi nga xam moom ñu dalal ñu permettre ñu ñu ñëw discuter askanu Patar di la ñaanal suñu borom teel a yen bi ba nga am ci ndam mu nekk ndam askanu yëpp kàddu yoo lañ bëggoon yëkkati rek leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu